bi nga xam ne ci leen jublu muy ñaar fukki fan ak ci weeru juin bii ñu nekk ñu dem ci ci jàmm ak salaam julli si jàmm ak salaam Sénégal continuer ci jàmm ak salaam waaye nag dafa am loo xam ne bu amulee day mel ni ñi ñu jàkkaar loolu bëgguñu jàmm yëg ngeen ne FRAPP déposé na altine bi passé ci table préfet bu Ndakaaru lettre d'information pour yëgal ko ne benn suba muy samedi diggante 15 heures ba timis bëgg nañu amal manifestation jàmm ak salaam pacifique ci terrain HLM Grand Yoff bu rëy bi nga xam ne moo jàkkaarloog moo jàkkaarloog stade Léopold Sédar sengor yëg ngeen itam ne altine boobu ba tey déposé nañ ci table préfet bu Ndakaaru lettre d'information pour yëgal ko ne dimanche muy gannaaw suba bëgg nañu amal tamit manifestation pacifique rassemblement la ci buntu kër Ousmane Sonko diggante 10 heures ci suba ñu pare incha allah tisbaar ci jàmm ak salaam. ñu siy senegal Sénégal yëpp si jàmm ak salaam waaye lu ñu xaw a tiital mooy waral ñu ñëw fii mooy vendredi 26 mai bi passé dañoo waroon def manifestation ci buntu Excaf Télécom ànd si ak section Synpics bu Excaf Télécom ndaxte liggéeykatu Excaf Télécom dañ leen ameel ñaar fukki weer ak juróom-ñaar ci payoor préfet mu interdire ko risque de trouble à l'ordre public entrave à la libre circulation des personnes et des biens entrave au bon fonctionnement d'un service noonu la ko motiver waa xanaa vingt 27 mois d'arriérés de salaire vingt 27 mois ku ko amel ay liggéeykat ñuy ay journalistes ni yéen caméraman ni yéen xanaa loolu du trouble à l'ordre public mu interdire ko gis ngeen ñu nangul leen interdiction bi ñu dem pour déposer lettre de protestation gis ngeen comment ils nous ont traités muy benn lii 26 mai la woon euh... non ça c'est trop loin waaw d'accord samedi mars beneen interdiction FRAPP dafa waxoon ne day def manifestation devant ambassade bu Tunisie ginnaaw bi nga xam ne président bu Tunisie. mu ngi doon yëkkati ay kàddu yoo xam ne organisation des droits de l'homme ak société civile yépp yu nekk Tunisie ñu ngi ko doon ñaawlu ndax kàddu yooyu li mu indi mooy ñuy tongali képp ku am der bu ñuul ci Tunisie ñu interdire ko risque de trouble à l'ordre public entrave à la libre circulation de personnes et des biens ñu dem pour déposer lettre ñu gazé ñu muy ñaar le 10 juin samedi 10 juin moo nekkoon manifestation F24 bi nga xam ne FRAPP moo déposé woon pour F24 ñu interdire ko menace réelle de trouble à l'ordre public risque de débordement et de sabotage des biens publics et privés entrave à la libre circulation des personnes et des biens lundi 12 juin ñun la ba léegi de FRAPP bi moom yëgu leen ko woon lundi 12 juin dañoo déposé woon pour manifester préfet interdire ko mardi 13 juin dañoo déposé woon pour manifester ci jàmm ak salaam préfet interdire ko mercredi 14 juin dañoo déposé woon pour manifester ci jàmm ak salaam ndax lan bañ rek ñu baare ay tali bañ rek ñu toj ay vitre ak ak ñoom seen bañ rek ñu taal ay pneu préfet interdire ko jeudi 15 juin mooy démb dañoo bëggoon manifester ci jàmm ak salaam préfet interdire ko xam ngeen ni lii bëri na de te lii mooy yu gën a tuuti yi ñu fi indi bugguñu woon dellu ginnaaw ci interdiction yi lu mu bëri waa léegi kon kan mooy menace de risque à l'ordre kan mooy menacer l'ordre public au Sénégal moo tax tam ñu ñëw tey seet si suñu doyen Seydi Gassama xamal ko ne ñun de waa FRAPP jàmm la ñu bëgg ñun de waa FRAPP li sénégalais yi namm moom la ñu namm mooy bugguñu dara toj bugguñu pën a tàkk bugguñu yoon yi mu am barage waaye li koy waral li koy indi bokk na ci président Macky Sall nangu ne. képp ku nekk ci réew mi képp ku nekk ci réew mi te nga am gis-gis nga bëgg manifester war nga mun manifester ci jàmm ak salaam librement et pacifiquement gis ngeen semaine bii rek altine mardi euh, àllarba alxames ñeenti manifestation semaine bii rek tey rek la ñu déposé wul manifestation suba bëgg nañ manifester gannaaw suba bëgg nañ manifester waaye lii ba kañ force restera à la loi mais force restera à la à la constitution ndaxte manifester c'est un droit constitutionnel lu tax ñu bëgg a manifester benn d'accord ñu ak troisième candidature bu Macky Sall ñaar ndaxte dañoo jàpp ne troisième candidature am daf fii yee fitna daf fiy yee ay ñett d'accord ñu pour que ay candidats ñu liquider leen ne du ngeen bokk. mooy Khalifa Ababacar sàll mooy Karim Meïssa Wade mooy Ousmane Sonko ndaxte day yee fitna te am nañ sañ-sañ ne dañuy bokk ñett lu ëpp juróomi téeméeri détenu détenu politique ñu ne nañu tabaski si jàmm ak salaam xanaa ñoom bokkuñu ci tabaski jàmm ak salaam ñun kay bëgg nañ tabaski si jàmm ak salaam waaye na ñëpp tabaski ci jàmm ak salaam donc ñi caabi féete ginnaaw. ndax dañu leen jàpp ndax d'accord ñu ak troisième candidature troisième mandat ndaxte dañoo bokk FRAPP ndaxte dañoo bokk Sénégal notre priorité ndaxte dañoo bokk rassemblement pour la vérité ndaxte dañoo bokk euh, euh, nitu dëgg valeur ndaxte dañoo bokk Pastef ak ñoom seen mais ñooñu foog ñu bàyyi leen ñu génn loolu itam bokk na ci li tax ñu bëgg a manifester suba ak gannaaw suba waaye itam ñii ñu rey ñii ñu torturer ñii ñu gaañ yoon def liggéeyam loolu bokk na ci li tax ñu bëgg a waaye itam signalu walfajir bii ñu dagg ci anam yoo xam ne ñëpp xam nañ ne du dëgg du yoon di menacer ay per ay mère ay soutien de famille yu fay liggéey mais signal boobu nañ ko dellusi si sans lii de moo tax ñu bëgg a manifester te nag. ah lii lan la le 23 mai interdiction la tamit waaw donc bii tamit le 23 mai gis ngeen manifestation rassemblement projeté mardi 23 mai 2023 de 10h à 19h voilà et interdit gis ngeen te yenn rek la indi mais lii lu muy wane mooy la règle avec le président Macky Sall c'est l'interdiction de manifestés. L'interdiction de manifester. L'exception, moi, manifester. ñu jàpp nag ne loolu mënul continuer euh, li nga xam ne ñun moom lañ jàpp ne moom lañu ràññee fii euh, ci réew mi benn démantèlement de l'état de droit mooy sañ-sañ yi fi nekk ci Sénégal dafa nërmelu sañ-sañ yi fi nekk ci Sénégal président Macky Sall ah mu ngi leen di faagaagal ndaxte tous les pouvoirs son vassalisés dem na sax ba pouvoir exécutif daanaka tey mooy pouvoir judiciaire te nag ñu ngi interpellé union de magistrats du Sénégal ndaxte nag pouvoir exécutif mënul vassaliser comme nu mu koy defee. ñuy def répression judiciaire comme nuñ koy defee ba lu ëpp juróomi téeméeri doomu aadama góor ak jigéen mag ndaw caabi féete ginnaaw jamono ji ba pare union des magistrats du Sénégal ne pat ñu ngi tere ay avocat président Ousmane Sonko dem seeti seen client Ousmane Sonko te loolu du dëgg du yoon ñu ngi interpeller la barreau du Sénégal mi nga xam ne mu ngi ne pat depuis boobu. mais procureur bu Kolda fii la def benn communiqué boo xam ne ministère de la justice mel na ni communiqué boobu procureur bu Kolda def musul exister ce à quoi nous assistons aujourd'hui au Sénégal mooy la démolition des droits fondamentaux avec des manifestants tués des manifestants torturés des droits constitutionnels confisqués des libertés violées ki nga xam ne tey moo symboliser moo mandargaal li nga xam ne ay at a ngi ñun ñu ngi koy naxarlu naan nañu moytu na nañu moytu nañu moytu Amnesty International section Sénégal di ko naxarlu muy li ñuy woowee traitement inhumain et dégradant muy torture ki nga xam ne tey bokk na ci ñi ko mandargaal bu baax a baax mooy li ñu def suñu mbokk Pape Abdoulaye Touré bu Sénégal notre priorité ay at a ngi yéen xam ngeen ko parce que FRAPP moo taxawal li ñuy woowee le collectif pour la justice et contre les violences yàgg nañ fekk lii yëpp amul ne nañu moytu de nañu moytu Pape Sarr commissariat Thiaroye dañ ko jiñ sàcc pour waxloo ko ñu sotti ko diluant maas ko maas boobu moo ko taal mu tàkk ba xëm magam bu jigéen bu mu koy mujjee gis hôpital mu ngi meloon ni moom yi bandaas ci bopp bi ba ci tànk yi ay bëtam rek la doon gis loolu bi mu amee yàgg na fekk li yëpp amul ñun FRAPP ñu ngi doon attirer l'attention suñu premier coordonnateur collectif pour la justice et contre les mooy ki ñuy woowee Hannibal Jim nekk ci kaso jóge Canada defu fi weer mu takk jabar ci biir lundi ci biir lundem yelam ñu ne ko ràpp ci kaso ndax lan Kopar Express kooku moo nekkoon premier coordonnateur collectif pour la justice et contre les violences moom moo njëkk wane ne ah Pape Sarr ca Thiaroye commissariat Thiaroye lii lañ ko def ndekete ñun li ñuy toog ne pat ci Pape Sarr boobu ñu def loolu torturé ko ndekete mu ngi raam ci ñun sekk Ndiaye ñu jiñ ko sàcc ay tissu ay policier dem fekk ko këram dóor ko dóor ko dóor ko ba pare lëmas ko ci matlaawam bëgg ne suicide maanaam nguuru président Macky Sall bi mu commencé maquiller ay torture ak ay assassinat di ko maquiller di ko camoufler naan ay mort naturelle la wala mort accidentelle ak ñoom seen boobu la commencé Elimane ñu jàpp ko commissariat port mu ngi dund dara dalu ko woon bi mu génnaatee dafa dee il est sorti du commissariat du port les pieds devant ñoo ñëpp yàlla leen yàlla yërëm xaare leen aljana Abdoulaye Timéra fii la ko oto police mbëkk yéen ñëpp yaa ngi di fàttaliku vidéo yi plaque d'immatriculation police ba tey rien donc en réalité dafa mel ni jamono jooju entrainement la woon lancement la woon band annonce la woon bande buy annoncé li nga xam ne dina nar am à grande échelle ñun waa FRAPP bi ñuy dem ñaan ñaani ndaxte dañu invité ci sàccum suuf ay nervi ñu mobiliser ay njaganjaay ñu dal suñu kaw ñu porter plainte pas pour ñun mais porter plainte pour que képp ki nga xam ne nangu na def liggéeyu Samba Surabali li liggéeyu Samba booy ñu lay fay ngir dal ci ay nit nga am tiitange boobu ça ko quoi ça fait deux ans non ça fait deux ans deux ans non fekk li yëpp amul woon bu justice defoon liggéeyam jamono jooju pas parce que ñun frappe la tudd bu defoon liggéeyam kon nit yi dinañ ragal naan bu ñu leen fayee dix mille wala cinq mille wala vingt cinq mille dinañ nangoo d'accord dal ci kaw ay nit loolu mooy nervi nervi nag du ko am doole rek du ko entraînement ba am doole rek nervi mën na nekk ku man na nekk ku mel nii nervi du ko am doole de mooy koo xam ne dañ lay fay pour ngay dal ci kaw ay nit donc soxlawul nga am doole donc parce que ñun waa FRAPP bëgguñu ñuy stigmatiser suñu mbër yi bëgguñu ñuy stigmatiser les lutteurs ñenn ci ñoom am na si ay nervi comme am na ci ñeneen ñoo xam ne du ñu ay mbër donc lii moo màndargal tey Sénégal mais nañ ci yokk leneen est-ce que xam ngeen ne tey jii nii police wu ak gendarmerie bu bu Macky Sall day dem ci hôpitaux yi ndaxte day jàpp ne am na ñoo xam ne daf leen di rëcc mu maanaam day jàpp ci mbedd yi après nag mu ne xëy na am na ñu gaañu ñoo xam ne man mënuma leen jàpp ñu ngi ci hôpitaux yi gendarmerie ak police dañuy dem defi ay raaf ci opito yi saay bu manifestation amee est-ce que xam ngeen ko est-ce que vous le saviez pire nous vous informons doyen Seydi Gassama que loolu li mu jur xam ngeen mooy lan am na ñoo xam ne kenn nettaliwuñ ko ñun ñoo ko xamal suñu bopp gisagu suñu bopp dañoo am ay góom yu rëy a rëy ndax bañ ñu raaf la leen ci opito yi ñu daw. ñenn ñi dañoo daw ba Kaffrine ñibbisi nañ fan yii passé ndaxte seen góom dafa commencé suppurer dafa commencé am ndët évidemment évidemment bu fekkee toppatoo wuñ ko ni mu waree li muy indi mooy góom bi day infecté wu c'est vous dire que la violation des droits de l'homme au Sénégal a pris un niveau très très grave bu ñu demee ba ñii di gaañu ñii di am góom d'accord dañuy daw bu ñu leen dugalee hôpital dañuy daw laaj leen ñu bëri biir suma lañ leen jàppee fii lañ leen wax ne am na ñu ñu jàpp fële nu mu tuddati non non non gendarmerie bu bu Wakam ñu dóor leen de vingt trois heures à deux heures du matin yuuxu yi fu fu nekk nga ko doon dégg biir Wakam ñu yóbbu leen suma pour faj leen ñu def communiqué de dénonciation xam naa ñu am tiitange yóbbu leen suma mais dañ leen yóbbu suma rek après 3 heures 4 heures ou 5 heures de temps ñu demaat jëli leen yóbbu leen maintenant c'est comme sax maanaam dañ leen di wan ne duñ leen may dara danañ leen gaañ ba pare ba pare bu ñu leen demee faj sax bu ngeen amee chance ñu faj leen dañ leen di dem jëli Pape Abdoulaye Touré biir gendarmerie lañ ko torturé naam ay nervi ñoo ko jàpp dem déposer ko gendarmerie gendarmerie dóor ko dóor ko dóor ko triple facture. ci tànk ak ci loxo ñu yóbbu ko waaw fu mu nekk nii nee nañ def nañ ko mandat de dépôt mais loolu ba kañ loolu mooy état terroriste xam ngeen luy terrorisme mooy utiliser la téreur un terroriste c'est quelqu'un qui utilise la terreur dans ses moyens politiques donc nous avons un état aujourd'hui un état terroriste qui par la téreur qu'il veut inoculer aux populations di leen di rey waaw même bu ñu la reyee sax bés bu ñu lay rob sa bésu rob sax sa néew dañ koy gazé biir almeer yi ni ñu defee Ziguinchor inventé wu ñu dara on en est arrivé la donc par la terreur di la gaañ ba pare di la filmer di la photo ñu torturer la mënate la nga mel ni ku nekkoon xaw ma ci xaw ma dans une porcherie boo gisee Pape boo gisee les photos de Pape Abdoulaye ture man ba léegi je me dis attends lii lan la xanaa kii ci porcherie en fait la nekkoon maanaam ban ban ban ban des cheveux aux orteils waa ji ban moo ma ne attends kii xanaa ci porcherie maanaam fi ñu def mbaam foofu la nekkoon nekkete dañ ko dóor dóor ko ba damm ko sotti ko ay ndox bu am suuf foog ne loolu dina tiital nit ñi donc lii moo màndargal tey Sénégal et ñu koy naxarlu en fait euh, euh, bu baax a baax et bokk na ci li tax ñu coupé signalu Walf mooy mu bañ a wane loolu mu bañ a wane loolu ah man de comprendre naa bu baax journaliste boo xam ne nee na ah man lii bu fekkee naa ko wane euh, bu dee dañ ma nar a jàpp wala dañoo nar a fay sama signal man comprendre naa mun naa comprendre loolu et c'est ça aussi le terrorisme utilisé par Macky Sall semer la terreur mais partout y compris au niveau des médias ndaxte ñun waa FRAPP li ñu gëm ñun ñi nga xam ne souveraineté la ñuy xeex y compris la souveraineté médiatique journaliste su France 24 gënuñu xarañ les journalistes sénégalais et sénégalaises ñun loolu dañ ko gëm on le dit pas pour vous faire plaisir li ñu gëm mooy les journalistes de TV5 ne sont pas meilleurs que vous li ñu gëm mooy les journalistes de Al Jazeera ne sont pas meilleurs que vous waaye est-ce que nous sommes dans le